ci li xew démb ak li xew tey mm-hmm. moo tax waxkatu wooy waxkatu wolof bu dafa wax jom solo mm-hmm. daf ni sëy ñett la mbokk ci ndey wala mbokk ci baay mm-hmm. mbaa dëkkandoo ji yàgg julu ju kom neex waa ku tëx ay mbokkam nga tës ay mbokk loo ca fekk bokk loo ca dal nga muñ ci loolu la ñuy dund jamono ñu toll nii te loolu yun salaa la ma ko jàngale nag ixtaroo li nutfatikum fa innal araqa dasas Seydina Mohamed nee na boo dee wut koo nekkal na nga tànn ndax sidit dafay royal mm-hmm. kon li mu doon contribuer moom loolu dëppog sunna la mm-hmm. loolu laa ci bëggoon leer rek pour ñu jàll l'islam nag bu buy atteb sëy ñaaree rek léeg-léeg danaa di xuloo de xam tax muy xuloo mm-hmm. may faral di wax ne l'islam lu mu rëddul départ bu du mën a atte biir loolu nag na ko gars yi ko euh, nuñ commentaire na leen nii leeral leeral ma leeral ndax man sama olof xóotul foofu maanaam bu fekkee ne yëf yi ba nga départ départ bi taxaw ko ci l'islam dangaa dem dem ba jaxasoo rek ne loolu l'islam wax day naqaree lijjanti buñ bëggee mu normal buñ bëggee mu réglé dañuy fexe départ bi ñu déparé ko ci départ yi nu lislaam mu continuer di ko àtte maanaam li ma bëgg a wax mooy sëy bu ko aada di àtte rek mu naqaree lijjanti waaye bu ko lislaam di àtte rek mu yomb lijjanti. ci silaay day doon lislaam. ci silaay ba day doon léegi nag bu loolu amee yàlla dogal soxna si ñëw comme ni nga ko waxee ba tey soxna si ñëw na sama kër ba dalal naa ko man mi dëkk ak moom lan la lislaam wax point bi mu njëkk def osnul maasala mooy kàndoo gi mooy nekkin bi na rafet alquran nee na wa ashiruhunna bil maaruf kii nga xam dafa bàyyi ay mbokkam ñëw ci yow fexe la nekk am nekkin bu rafet gis nga nekkin bu rafet lu am solo la léeg-léeg jigéen wala nangam ak déedéet góorgóorlu nekkin am nekkin rafet daal nettali foofu nettali bu doy waar dafa am genn góor boo xam xam naa ne siise la sant yàlla dogal mu yor na ay soxna ñaar pour nekkin bu rafet ñu amee solo bi yàlla dogal mu yor ñaar kenn ki di am doom bu jigéen kenn ki di am doom bu góor mu xëy benn jour rek ne yow mi am doom bu jigéen daal man booletuma say wax ko ak wan ko ginnaaw waaye ndaw sa ko mat lim doon la dafa xëy benn suur rek bàyyi ko mi romb rek mu yëkkati benn point benn way ne maali abi am satin laa yaatiina wa yadxulu bayta lati yaliina qad baanan bi annana laa naridul baaniina wallahi maa saaka bi aydin fiina wa nahnu kal ardi li shaariina mu njëkk yaay mu ne waaye bàyyi am sa kañ la dof moom kañ la gàtt xel ba tax moo ñu ginnaaw abandonné nañu ne ñun duñu am doom yu góor moo tax moon ñu ginnaaw di dund ak këlee am doom ju doom ju moom yëgul na ñun suñu yoon nekku ci ñun ñoo soof si ñoo tool ñoo yem la nga ci ji rek mooy sax boo ko góor gi déggee xam ne ah jubban nañ ko ay lay woon mu delluwaat ginnaaw tuub ñëw ne ko maa ngi jéggalu dama doon juumkat waaye li nga waxul jubban jubbanti nga ma moo tax kon rafetu kàndoo islam da koy bëgg ci euh, diggante ñaar ñi nga xam day sëy moo am nag ay xaq yoo xam tey su ko waxtu mayee woon bu ñu ko doon développé dañ naan sëy boo gis ñett ko séq am na xaq boo xamante ni jigéen ji la war ak boroom këram am xàq boo xam borom kër la war ak jigéenam mooy bi nga laajoon. Mm-hmm. am xàq boo xam sëy beeku moom. Mm-hmm. ñetti yi waaw muy loo xam ñu bokk ñoom ñaar. Mm-hmm. gis nga ñett yooyu ñetti point yooyu dafa mat dafa mat di jàngal xale yi bala ñu dugg ci néegu sëy bi nga laaj nag bu ci ko wax mooy rafetu kàndoo ñaareel ga mooy nga téye ko téye ko mooy lan mooy nga dëkkal ko. alxuraan nee na wa askinuhunna min aysu min aysu sakantum fa nekk nekk fa mooy dëkkal ak ñoom loolu nag. ma pas dire que ne boo nekkee fenn di liggéey mën na faa ñëw déedéet fexeel ba dëkkal ko dëkk bu baax rek loolu yëmu ci mu ne nag fexeel ba na nga koy odd mooy yéreem na nga koy jëndal yére muy sol fu mu toll wax ma nga dem jënd xartum jox ko de demal jënd jasneer bu rafet jox leen ndax ñoom kat luñ ñun yaay rek luñ sol rek yaayoo nañ ko ndax yonent sallallahu alayhi wasallam wax na leen bàyyi xel gone yi jigéen yi ndax yéen kët yéen leen jëlee seen kër yaay ak seen kër baay sàkku ak dagat ci ñoom bañ bàyyi li ñu nekkoon yépp ñëw ci yow mbokk yi ku bàyyi ay mbokkam ñëw ci yow na loo ko defal rek mérite na ko mm. ndax maa akramahunna ila karimun wa maa ahanahunna ila lahim ku leen teral ku baax nga ku leen di minimiser ku doy waar nga mooy ne su dikkee na ko na nga ko dëkkal mooy dëkkoo bi may wax noonu na nga koy nag na nga dundal ndaw si bul fàtte ne jigéen ku ko yor yaa ko war a dundal mm-hmm. jigéen ku ko yor yaa ko war a dundal waaye nag léeg-léeg ñoom it ñu nax leen xam nga léeg-léeg ñu nax leen yéen tuddee leen femme d'affaires ne daal ñaari loxoy takk tubéy mooy takk sër waaye ni ñu koy takkee bokkul nag fi ñu takk sër ak fi ñu takk tubéy bokkul de waaw kon bu ñu ñaar doxee takk tubéy mooy takk sër tax nga gëm loolu jóg nga dem ah dana doy waar moo tax la leen lislaam mayoon loolu mu ëppoon solo toog muy dox mooy nga toog fi nga toog ñi lay yoral sa lépp mooy li am solo moo tax xàq bi lislaam gàcc góor gi mooy yow mi yor soxna yaa war dundal sa soxna wa alal mawludi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bil maaruf yow mi nga xam yaay borom këru ndaw si yaa ko war a ko war a koddal yemut ci loolu it dëkk di ko muñal gis nga jigéen ñi ku leen yoral muñ ku leen yor muñ leen dafa am ko ñëw ci Seydina Omar Xattab te ci laay daane lay delloo jox la ko ñëw ci Seydina Omar di ko kalaame ak soxnaam ba mu ñëw ne ko sama soxna si nii la mel sama soxna nii la mel nii la mel nii la mel ñëw fekk Seydina Omar soxnaam di nekk moom ci nekkin wax xam rus nañ ko nettali ci ci ci ci kanam écran ñëpp ko dégg waaja ba mu xoolee gis Seydina Omar dundul dafa delluwaat ginnaaw noppi ñibbi kat ne man kat ki mu doon muñ kon jigéen ñi ku nekk ñoom faaw nga muñal leen yooyu moom ay xàq la yoo xam ay warefteef yoo xam ku bëgg yor soxna faaw nga dimbale dimbale leen ci côté yooyu macha allah macha allah